عيسى المسيح في دين ديفو مرحبا رمضان يا الله اجعل في قلوب قلوبنا وأرواحنا نور القرآن Baby Sunny, where is your book? My book. Do I need to buy a book? Yeah, you need to buy a book. So let me just go and no, no, but don't worry because you don't have book. Let us start with the phone. No, you have to come here. Can I study through the phone? Yeah, you can study through the phone. Or uh, come to the Play Store. You see, when you come to the Play Store, you have so many things here. You see, English grammar is here, poems, everything, so so on. Mm-hmm. Anything you need is here, okay? Then let us try then. Uh, let us come here at this place. Then. You know, today I have so many things to do. I don't even want to waste my time here. Mrs. Diallo? Yes. How nekk day nekk study. Why ñu ngi study. Maam ngeen go back here. Yeah, yeah, yeah. Kii sax dafa intelligent mom. Daf di gaaw yeah macha allah Bibi Salim mu um, ngi try hard de xanaa ngeen gën koo jàppale rek ngeen koo prove xam nga nit ki moom uh, loo nekk looy def def lu nekk fas lu daw daw dañ la dang koo dóor mu gën a kii xam nga mu ngeen a dem si kanam pour mu gën a daw but uh, loolu la rek xanaa da nga niit pour jëndal ko ay books. ak yooyu la bëggoon a laaj sax ba am na books fii yëpp. di am amagut waaye niitut sax waaye digg la waaye niitut sax xam nga nit ki moom. soo amutee phone sax. Mhm. soo amutee books sax. Mhm. Euh, mun nga dugg si xam nga léegi internet moom deseetul dara. mun nga dugg si internet bi. am na place boo dugg moo nekk mhm. play store. soo duggee play store ah waaw noonu la noonu la moom xam nga lay wax noonu. xam nga jàng moom weesuwul sax. dinaa wax mu jàngam su paree grade 12 noonu la noonu la. kenn si jàll. bay ma dem misis aku de ak wa ndegu ma ni mis ah Miss jallo wah. ah ok xadeg jangu ya ngale la non la bal ma de way sen dom bi jangana non la wa ah, non kun bay ma dem ci bir ma noppale ko xam thank you ci bir ba ci kanam de nga misis la mis mis ah Miss Miss jallo wa nako jang bo mokal ko de la ba Okay, then let's continue now. You see now, this is English vocabulary. Hmm? Then we have to say. Salam alaikum. Alaikum salam. And up. Fine. Fine, Jam. Well, you need okay. I don't understand Talk to him. what you're talking about. Can you no. please go back to it? No, okay, then. Sister. Concentrate here now. Yeah. No, Def. Fine. Thanks, Jam. Talk to him now. Yo, who are you here? Who are you, in fact? Uh, that's good. You speak English? Yes, yes. Yeah, I'm very English of the Gambia people. Huh? Yeah, my heart is very Can like you. Sorry for yourself. When I saw my big heart is come very bad. Please, baby, Asia, baby, please. No, my okay. English is very best, huh? Uh huh. Yeah. Uh, what is your name? My name is Jainaba. Miss Jainaba. Hey, Jainaba Miss is very like Jainaba. My heart is very uber to for you. What? My heart is very uber to for you. <laughs> you speaking English or you are? My English is. You are joking. You are not speaking English. What no. kind of English is this? My best English. You lie. Hey, look, your bear. What? Your bear is very nice. Let me remove this thing. Uh, what do you mean? What do you want? I look your ear nice. I look your be nice. He's just like this. You're not you're the gulumay. Come on, daran daran He's a ah. good man. This is English man. He is Englishman. I'm the woman Englishman. What is your name? Nakangatula. Say. Ah, sorry for yourself. Uh, my name is Abdullah. Nakangatula. English. Abdullah. You say English binih na matarot. Oh. You so. big nasio. Can you study please? No, wait for me. Manala did David. Oh. <laughs> no, son. This is uh, of Englishman. I'm the English of the Gambia. Because I very like eh. you. My big heart is content by you. kii bul wax ak kii dara la xamul. Ah. ndaare. ndaare nag kii daf dee neexal kër de. yow bàyyi bi ah. wax loolu yàqal sama doom bi day jaamu kii dafa dogal. gis nga yow si biti laa la wax bu ma problème laa la wax. bàyyi ko yow bàyyi ko yow déedéet yow man dama laaj kii sax naa la loo koy laajee. bàyyi ko bàyyi ko dama waxtaan ak moom. c'est ça. Ah. wala yow nga génn bugguma xam kii li ma bokkal. yaa ngi comprendre go now now. Ah. my big heart dafa def yow xoolal fi lu muy laaj. I very love you of the big people. I want my number. yow mënoo génn kër gi yow wala ma la Fatima yow nii nga mel. ma lii suma baag la. xam naa sa baag la. waaye dama laa respect soxna si. déedéet Fatima. da nga may déglu man dama lay fay sama xaalis. waaw dama ko liggéey. dëgg la pour nga jàngal sama doom uh-huh. keneen du jógee fële ci mbedd bi di waxu anglais yu ma xamul. man sa déggu ma anglais ne leen ne yéen mënu leen a fay benn ticca. ticca kenn mënu eh. koo fay. man dama jaay làmmiñ gu rëy sama kër nga ñëw dama la wax lu nekk da ngay déglu dama la wax nga jàngal sama doom doomi aadama eh, déglu ma déglu ma du ma ko mën a respect kii du nit ma ne nga déglu ma du nit naka la fee duggee rek da ngay behave like yow gis na ma aat dinaa aat eh, sama kër nga ñëw waaw sama kër lu nekk ci kër gi déedéet yow as a teacher man li jënd nit ki ñëw war nga koo ne eh sax man ma génn soo gisee nga am na la ngeen seeg eh si ah, man di sa njëriñ laa doon loolu li jëndiw ma naa say morom rek a fi nekk baax na ah parce que amoo jëkkër yow dem sa jëkkër ngay wut eh si biti laa wax soo melee eh, nii si biti laa wax si biti laa wax soo bu bëgg a dee ñëw sama kër ngay da ngay li jënd sama kër yow est-ce que dafa doon study sax. man study ma dara mënuma fexe ba study ngir. naka la tijjee di ñëw di study xale di indi ay mobile. ñëw ay english am yoo xam ne. di bind di bëccëg daf doon ay spec su nekkee Ablaye la bëgg a noppante wala sama jëkkër bi fii de du fi amee yoon lii moo tax bëgguma tijjee bu jigéen. tijjee bu jigéen dara laa ci bëggut tijjee bu góor laa bëgg waaye Ablaye moom ba ba ba ba daam ñëw dina xam ne jigéen jéeg pexe. boole boole fekk nañ dem si biir. képp fay dafa bëgg a dee engrais bu bon bon. lu tax yow xaañu loo ko war naa la bu ko dee may dara si kër gi war naa la ko bu ko dee may dara waaye tey jii koor bi tàng na de faa. bay caaxaan bi nag yomb waay. ah ma la moom a jaaxatu daal. ah gis nga koor boo demee ba waroon ndox. waaw ah. temps bi day gën a gudd. day gudd day gudd day gudd. Ablaye Ablaye waa ñu guddaay da ngaa xiis rek. waaye temps bi moom ba digal comme nekkoon la nekk rek. kii naa arrière la. muy ma ah gis nga am na benn borom kër boo xamante ne ah. waaw gis nga kooku wax ju tawas. daa dem ba war wax dem di jënd xar kan, rek. waaw ñu ko doon ñu ko tey nga wax tey nga wax kii nu mu tuddati sax. incha allah. yow la nga wax incha mu ne ko non dara gaa ngi rek dara gaa ngi nii. saa dafa génn dem dugg si dara ba rek ne laa mu poche fekk fa dara. kooku dafa di lekk di wax lii di wax lii di wax lii. ah kon ah non xëy na ñu war a ah ah kii ban maanaam bi kat moom moom. waaw ginaar ginaar bi ba ginaar moom tey moo xool dama kii tey du ma laal banaan. tey du ma laal banaan Ablaye defal naa ginaar moom balaa nga koo laal kilifa day laal bëri. gone du njëkk laal ginaar. aleykum salaam. baa yaa ngi am jàmm baax. alhamdulilah bisimilah. Bismillah salah sih? Eh? Nah, bondo. Son. Oke. Ñetti fan. Sama borom di ko jàppale yàlla itu gën

teel teel teel teel teel teel. lii pour la loo ma joxe. lii laa la. waaw. léegi léegi teelal loo def. eh wuy ma da may wuy ma. da may wuy da may wuy jugal ba pare jugal ba pare. jugal ba pare yaa ma wax ni carrément nit ku mënul daal dañ koy dimbali. Ablaye reeti ba reeti ba reeti yow yow reeti ba ba pare. yow li ma def ren ko gën a seet. déedéet weeru koor dañuy dimbali ñi nga xamante ne amuñu amuñu. Ablaye yow li ma def ren moo ko gën a seet. yow naka laay mën a joxe sama dépense ginaar yi nii ñu roof ko ngeen ngeen di di ko déglu ah Ablaye. bu lemoon di jaay. ah man bu ma ci dóoraale. bu lemoon di jaay bu ma ci dóor man dama la a waaj weer ko ma man moom nan la. dañuy dimbali dañuy dimbalante ñi nga xamante ni seen loxo jóg seen ginnaaw. waaw yow yàlla wërsëgal na am na loo loo ndogo. kee ñëw na wax wax bu doy wa yaram. amuñu lenn lu ñuy def du la jox ko luñ doog ñun am na banaanaa ngi fi mburoo ngi fi ñun loolu ñu lekk loolu. waaye léegi pare man ma loxo daa jot sama ngeen xool xool xool ba am dem xool xool ba. ni jaay ni jaay jullit nga de jullit nga. ganaar mooy tax ngay def lii yëpp ni jaay xanaa tey nga mos a lekk ganaar. am na teel paa bi dégg nga ray de am na ay daw dégg nga ray ray ma ray ma ray ma ray ma ray ma ray ma ray ma